asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina njabootuk cheikh Mouhamadou Rokhaya Mbacke maa ngi yëkkati ay kàddu ci ndigalul sëriñ Cheikh Anta mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëriñ Modou Rokhaya gépp sëriñ <clears throat> bi wax ne naa ko jotalal ay kàddu cant <clears throat> yoo xam ne day jëm ci mbooleem ñu ko sun borom subhanahu wa taala booleel ci ndigalul sëriñ Touba te muy njabootu sëriñ Modou Rokhaya goo xam ne seen maam ya ak maam Cheikh Anta ñoo àndoon seen baay ya àndoon ak sëriñ Modou Mamoun ba ci sëñ Modou ya ñu dem bàyyi leen fii ak moom ñoom ñëpp ñu wëlbati ko laxasaa yu topp ci ginnaawam fas yéene ndigalul sëriñ Touba lu ñu dégg ñu takk ci seenu laxasaay ba sëriñ bi am ko ni ko bëggee sëriñ bi wax nag ne. ginnaaw bu mu la jot leen can canti màggal gi ci taxawaayu rafet yi ak wuy siin wi wuy si sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ànd ak moom sant le ko cant gi sëriñ tubaa woote ngir sant boroomam ñu ànd ko ak Cheikh Mahamadul Muntaxa ba def ko ni mu ko bëggee nee na sëriñ bi sant na moom it sant na mi ngi ñaan ñu daje ceeg ngërëmul yàlla ak ngërëmul yonent bi ngërëmul sëriñ Touba di leen sant bu baax ci woote bi mu woote woon lu jëm ci liggéey ba nekk Longoor tam doon ab liggéeyu tool te mu sédde woon ko lu jëm ci Kajoor ak ña ca aju ñoom ñu dem fa def ko nam ko bëggee ba liggéey ba àgg mu woote waat liggéeyub xelkoom bi nga xam ne ku ne xam ne ne 1990 ci sëñ Saaliwu njëkk a woote xelkoom mu si cee jóg di woo waa Daaru Salaam rawatina njabootu sëñ Modou Rokhaya ba 2022 jii ko sëriñ Cheikh woote lépp ñu ànd kook moom di ko wuy sëriñ bi nee na ñoom ñëpp ñëwoon nañ def ko nam ko bëggee jotaloon na leen ay kàddu cant waaye nee na naa leen jotalaat ak cant xam ne ku def sëriñ bi bëggu sëriñ bi yàlla def sa bëgg kon nag ginnaaw bëggu sëriñ bi noppi na yàlla na yàlla faj itte yëpp te saafara ñu suñuy suñuy suñuy jàngoro te may ñu suñu bëgg ci barke Cheikh Al Khadim sëriñ bi waxaat nag ne ndigal loolu nga xam ne moo jóge woon ci sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa ñëwoon ci moom te muy defaraatal ko foofu ci bâtiment daaru salaam bi li sës ci moom mu defaat fi néegub alxuraan waaye def fi néegub waajtaay tam ànd ak ay wanag loole sëriñ bi nee na woon na leen ca ba ngeen wuy si ko waaye fas na yéene nag daal di door liggéey ba incha allahu rabbi ndax gàmmu gi rek la doon xaar ginnaaw bu mu leen santee ci wuysi gi ngeen ko wuy si pir ànd ak moom ca gàmmu ga dem ak moom daaru baaxum kon sëriñ bi nee na na ngeen xam ne liggéey bi nag daat nay door nam leen ko waxe woon li feeg defu ko ba mu sotti caleet mu fabaat caabi je ànd ak yéen jébbal ko sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha sëriñ bi nee na ma nga ca di xëy ci kër sëriñ Touba ga di fa gont ba ba sëriñ bi amuk bëggam te fas yéene yéen a dem yóbbaale taalibe yëpp ndax nee na moom képp bëggut a àgg daa bëgg suy àgg àggaale taalibe yëpp ndax suñ sëñ Touba kat moo ñaanoon boromam na ko yow yàlla dee ma fajal aajo yi ñi nga xam ne ñoo sax ci di liggéeyal kon nag nee daa bëgg liggéey bu daanu rek ñu song beneen ba li li sëñ bi bëgg lépp mu am ko ñu it liñ bëgg ci sëriñ bi lépp ñu am ko kàddu yooyu mu bàyyi koon ci sëriñ Cheikh nee na képp koo xam ne nag bëgg nga lu la leer ca liggéey ba mën ngaa jox ko ak moom ci 77 877 64 64 77 877 64 64 wala nga woo ko ci 77. 644 63 03 77 644 63 03 wala nga woo Serigne Wadd ci 77 537 11 88 77 537 11 88 Serigne bi nee numéro yooyu ku ci woote loo bëgg ci wàllu liggéey bi ak loo cay joxe dana agsi ci moom kon nee na mi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala mu gàttanduñu ak ndimbalam ak tawfeexam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.